non wax dëgg yàlla euh, tagg amu ci critique amu ci xam nga moo ci am indi xibaar ni lii moo xew nii la dem bu dee nag ki koy jàng dafa gis ne lii baax na tagg ko la man na ko jàppee tagg ko bu dee lii dafa gis ne que lii baaxut critique la na ko jàpp ne critique mais man dama bàyyi lecteur bi jox ay éléments li ko vraiment yaa ngi nii noo ko gisee yow man sama gis-gis bopp amu ci solo man journaliste la damay indi ay xibaar indil ko askat bi indil ko nit ki ko xel da nag ëpp ma ko xel gënu ma koo yeew gënu ma koo jàng boo demee sax moom a gën a jàng moom a gën a yeew wala li ma koy wax sax moom a gën a xam kooka a kuli al dina xam nu mu ko gisee mbir boo ko déggee rek am na noo koy gisee wala noo koy yëgee dama bëgg a bàyyi responsabilité lecteur bi mu gisee ko boppam yëgee ko boppam nu mu ko ci nu mu ko jàngatee mu jàngatee